am nañu ne toog mooy jàmbal ñu ñëw lépp lu yàlla ci leen def ci la nga mën yàlla tere nga bàyyi donc suñu la doon waajal suñu nax yàlla ndax duñ topp kenn ci lu nekk di yàlla. ne óolu kër bi xam yàlla ñu lu ko nekk def ci yàlla sant yooyu nangoo amiin amiin mooy naan ñoom ci yàlla dafa dëggalal bàyyi ci yàlla ñoom ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laajee war nañu ko def si def si àjjuma alhamdulilah. sëriñ bi mu ne nañ xam ne ñun ay taalibay Baay lañ ay taalibay Cheikh na Ahmada Tijaani lañ. lépp lu Baay nekkoon. danañ ci jéem lépp mën. danañ ci jéem lépp luñ mën. lépp lu Cheikh digle woon. lépp lu Cheikh na Ahmada Tijaani digle woon. danañ ci def luñ mën. waaye nag. nee na taxul ñu woote nag benn maqaama. ñun amuñ benn maqaama. maqaama. mu ne ku ko laaj daal lan mooy sa maqaama. na na leen def leen di gàttale rek na leen bàyyi ñës. mooy sama maqaama. te war a ñëw ak ci baatin nag. li feeñ ak li nëb. kon sëriñ bi nee na mbokk yi. nee na mu ngi digal ñun ñëpp. nee na mu ngi ciy jiital nag boppam ci digle googu. nañ topp bàyyi. nañ topp Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. nañ jéem a xam kan mooy roy baay. nañ jéem a xam li indi. nañ jéem a xam li baay andi. ndax ñu mën a roy baay. ci li feeñ li nëbb nag. ziyaara baa ngi waaj a ñëw. nee na ziyaara baa ngi waaj a waaye ku ñaan ci yàlla képp ku fi ñëw. sa bopp nga ñëwee fi sa bopp. doo fi bàyyi benn bakkaar. te yëpp mi ngi ñaan ci yàlla képp ku fi ñëw. bul demaale benn bakkaar. mu ngi ñaan ci yàlla képp ku fi ñëw ak soxla bu mu mën a doon jàll na ko yàlla fa jàll. nee na mu ngi ñaan ci yàlla. Cheikh na Ahmad Tidiane. Cheikh na Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. imam Cheikh Cissé. ak imam Cheikh Ahmad Cheikh Ahmad Tidiane Cissé. ak Seydou Mouhamadul Mahi. ak Cheikh Mouhamadul Mahi. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. leen yàlla bàyyi suñu kanam. mu ngi ñaan ci yàlla yal yàlla bàyyi ci suñu kanam na mu ngi mel ni nekkuñ fi. mu ngi teew ak ñoom. kon nañ góorgóorlu bu baax. na nañ góorgóorlu bu baax a baax. nañ topp yàlla. nañ góorgóorlu topp yàlla. yàlla. nañ bëgg yàlla. nañ ragal yàlla. ndax yàlla lu ko neex lay kon nag. tey leen seen tariqa bi. nañ fonk suñ tariqa bi. fonk gu mat sëkk. fonkal gu mat sëkk. tey dem di ko jox ci waxtoom. tey it di ko joxe ci waxtoom. buñ ko defee. suñ defee loolu. yàlla dinañu yombalal suñ mbooloo bi. suñ mbooleem mbir nañ xam ne yàlla dinañu ko yombalal. ñu ngi koy ñaan nag ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu ko yàlla yombalal. ci barke Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. Abdoulaye. ci barke maam Alxaaji Abdoulaye Niass. ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. moom mi nga xam ne mooy jaamab jëmmi yàlla ji waaye mooy feeñu waaye melo yeeg tur yi. amiin amiin آمين يا رب آمين يا رب آمين آمين آمين يا رب آمين آمين يا رب آمين آمين الحمد لله